فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا كوني لحو حمدي بما ستبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أعطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالق الورى مولانا محى الفرا وزحزح الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأوقط بي ورمشاناك وذان لي عند الوداع ما شانا لك وجهنا لي تقديم والأمانة أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقران لي وأبتى البشر والجيران كفيتني قوما حووا قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت ودقانا جذت البحور رضني ممانا بالمنتقى أتبت للزمان جزاء ربي راض لسلطانا مع الأمين والمنى أحتانا أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوه حيانا ناديته وبالمنى فجانا وبالنبي أن نستني مزجانا الحمد لله الذي حدانا لذا وبالأمين قد فدانا محمد وحبل القرآن شكري إلهي علي أنا نفى شكوكي قاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحبل الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا لحو قطابي ومحل عصيانا كما كفاني من حوى طغيانا قلبت لي يا مالك الأحيانا يا من محى القطأ والنسيان وجهت لي ما قادني برهانا يا من ينور بي رسول الله قد آوانا منذ الأمير أظهر العدوان أنت الذي ألنت من آدانا بمدح من كتابه هدانا لرت من ظلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مدم كوسي صافيا جذلانا وللأمير قلد القزلانا يا الله يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد ألك سجانا عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص أبدا محل قدر عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص أبدا محل قدر إلي وجه الكريم الباقي ذو الأراضي نصب والطباق ما رمته من حب جاح المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهدني ربي بأني عبد له قديم لنبي ويبدو حدم بنيته على يلاح يغذي الذي نازحني الإله دون مكاتب العبادات محا تغربي كل المضى يا جمحا وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه سودا تبيض أجر الذي نادعني ولم يتب شقاوة تدوم في أم الكتب لي بان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واحب وسيلتي يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر باح بقمة النبي الأولياء عليهم رضا مفيد نيليا كرمني الكريم والمكرم بجاه من هو النبي المكرم ردني أن الله والمحتار وحميت كنيتي أستار من لم يوافقني في الذي أحب نفاه ربه إلى ما لا يحب هداني الحدي فلا أضل فمن يوافقني فلا يضل عني محاثي ورداه الأكبر باق أتاني من قير ذبري إلى سواي كل من أداني بصرف باق ذكر أداني إلى سواي كل من أعداني بصرف باق ذكره حداني محت حروف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما اشترى مني مبيئا ينفد كتاب ربي رفيقي أبدا به كفان الله من لم يعبدا سلامة الذي يذوذ بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر لله فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا ولن يأمن ببقاء وصحاح وقادني كتابه مع صحاح وجهه الكريم زحزح الكدر إلى سواي وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينحو جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغضب والضلال رضا العليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذو متين لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا قوت منافع السنين وشهور خالصة لوجه مالك الدحور وجاءني الجميل في دنياي ببصر مقلدا سنيايا ناديت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا sëriñ Fallou Sylla nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdoul Khadir Mbacke nee na ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdoul Khadir moom sëriñ Modou Rokhaya moom sëriñ Modou Rokhaya Mbacke ak ci turu sëriñ Mame Balla Mbacke ak ci turu sëriñ Mbacke moom sëriñ Modou Rokhaya moom sëriñ Modou Rokhaya Mbacke ak turu sëriñ Cheikh Gaynde ak ci turu Serigne Cheikh Gaynde moom sëñ Modou Rokhaya moom mu Modou Rokhaya ak ci turu Serigne Maam Cheikh mbakke mii ak ci turu Serigne Maam Cheikh mbakke mii ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp ñu leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Anta nee na ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifab Serigne Modou Serigne Modou Rokhaya Mbacke mu yabaloon leen fi nee na mu yabaloon leen fii ci tool yi ginnaaw màggaluk Touba ginnaaw màggaluk Touba Serigne Cheikh mbay sëriñ Cheikh mbay moom sëriñ Abdou Khoule. moom sëriñ Ab Abdou Khoule. mi nga xam ne. mi nga xam ne <coughs> tool bii. tool bi ba mu ko dollee ca way juróom. ba ko donnee ca way juróom. mu daan ko bay. mu daan ko bay. di ko jébbal sëriñ Muudu Maamun. di ko jébbal sëriñ Muudu Maamun Mbàkke. bam aw ko ci ab gopp. ba mu aw ko ci aw ab gupp di ko bay di ko bay moom mii sëriñ Seex di ànd ak njaboot gi di ànd ak njaboot gi di ko jébbal sëriñ Muudu Maamun di ko jébbal sëriñ Muudu Maamun Mbàkke ba noppi koo gis ba koo gis noppee gis way juróom noppee gis way juróom di ko bay di ko bay moom sëriñ Seex di ko jébbal sëriñ Muudu Roqaya di ko jébbal sëriñ Muudu Roqaya Mbàkke te ku ne xam na ne nee na te ku ne xam na ne diggante sëriñ Abdou Khoule diggante sëriñ Abdou Khoule. ak sëriñ Modou Roqeya. ak sëriñ Modou Roqeya. dañoo meloon ne. dañoo meloon ni. dañoo bokk ndey ak baay. dañoo meloon bokk ndey ak baay. kenn nattablewut ne. nee na kenn nattablewut ne. bi mu wëradee. bi mu wéradee fii la ko sëñ Modou Rokhaya jël si fii la ko sëriñ Modou Rokhaya Mbacke jël si to yóbbu ko Daaru Salaam nee na yóbbu ko Daaru Salaam téye ko fa téye ko fa ba mu wóor ko ne wér na ba mu wóor ko ne wér na mu yabal ko mu yabal ko mu dellusiwaat ci dëkk bi mu dellusiwaat fii ci dëkk bi ndax booba xam na ne nee na ndax booba xam na ni diggam ak dem àjjana diggam ak dem àjjana la ca des bariwut xam na ne la ca des bariwul de te mun ta gental longoor ci noonu te nee na xam na ni mun ta gental longoor ci noonu mu yabalaat ko mu yabalaat ko bi mu ñëwee longoor nee na bi mu ñëwee longoor ba tàggu toog soofus longoor tàggatoo ak suufu si la ngoor. tàggatoo ki bokkam. tàggatoo ki bokkam. ci la dem àjjana. nee na ci wuutu ko. ñu duppee maam Cheikh Anta. yitteem jëpp. ci ak ndaw. ba ci ak mag. ba ci ak mag. rek la. lenn rek la. ku xamoon seex ci ndaw. ku xamoon Serigne Cheikh ci ndaw. xam ko ci ak mag. xam ko ci ak ne bijaaw. xam ne bijaaw. moo dolli ko ci moom. moo dolli ko ci moom. waaye du pësteef. du gën a bëgg mbokk. du gën a bëgg mbokk. du a bëgg lu baax. du a bëgg lu baax. da judduwaale nee na loolu da koo judduwaale màggaale ko màggaale ko ba bisub tey jii nee na ba bisub tey jii diggam ak sëriñ Cheikh Anta nee na diggam ak sëriñ Cheikh Anta jëfi yàlla la nee na jëfi sa borom la de ndax bi fi sëñ Modou Rokhaya ne nee na ndax bi fi sëñ Modou Rokhaya di nekk seenug jaxasoo bariwul seenug jaxasoo bariwul waaye ci atum sëñ mu mujj waaye ci atum sëñ Modou Rokhaya mu mujj la woo sëriñ Cheikh Anta la woo sëriñ Cheikh Anta na ko damaa bëgg nga dem Longoor nee na ni ko dangaa dangaa bëgg nga dem Longoor boo demee kañuy wax sëriñ Cheikh Mbaye boo demee kañuy wax sëriñ Cheikh Mbaye na nga ko ko gane ji yendoog moom yendoog moom jàppante ay loxo. da ba fi Serigne Cheikh ñëwee. nee na keroog ba fi Serigne Cheikh Anta ñëwee. li mu wax ci aw làmmiñam. bi ma njëkkoo yendoog moom. bi ma njëkkee yendoog moom. daf maa wax ne ma. daf maa wax ni ma. ngan nga. ngan nga. Anta. maam Cheikh Anta. defaloon Serigne Touba. ngan nga maam Cheikh Anta defaloon Serigne Touba. mënuma ko. mënuma ko. awuma ko. awuma ko. waaye dégg naa ne. waaye dégg naa ni. fukki nag ñaar. fukki nag ak la ko daan reyal. la ko daan reyal. awuma fukki nag ak ñaar. awuma fukki nag ak ñaar de. waaye danaa la jébbal. waaye danaa ñaar. fukki ruu ak ñaar. keroog ci bis boobee. nee na boobee. jébbal na ko fukki ruu ak ñaar. nee na jébbal na ko fukki taalibe ak ñaar. muy 95. nee na muy loolu muy 95. 96. 96. sëñ Modou Rokhaya dem àjjana. sëñ Modou Rokhaya Mbacke dem àjjana. bàyyi ko fi moom mii. bàyyi ko fi moom mii Serigne bàyyi fi sëñ Cheikh Anta. bàyyi fi Anta Mbacke. boobaak léegi nag. galas nee na boobaa tool bii. tool bii. saa yu ko bayee. saa ko bayee. du ci mboolu. du ci mboolu. fay ñu koy bay. danaan fay ñu koy fay ñu koy góob. fay ñu koy góob. fay ñu koy bojj. fay ñu koy oto ba koy indi. fay oto ba koy ko sëriñ bi. jébbal ko sëriñ Cheikh Anta. na ko toolub sëñ Gaawaan a ngoog. na ko toolub sëñ ngi nii. boobaag léegi. nee bis bu set. at mu jot. at mu jot. wóor na ko ni. wóor dana jëlee ci tool bi loo xam ne. dana jëlee ci tool bi loo xam ne. tund wi ko wër. tund ko wër. mu ñu ko. amuñu ko. la waral la waral loola nag. day bay bay di jox yàlla. jox yàlla. te yàlla ko koy jox. nee dafa wax ci làmmiñam ne. dafa wax ci làmmiñam ni. muy alxuraan. muy ne ku ma lebal benn fepp. nee danaa la fay téeméeri fepp. danaa la fay boo ko defee téeméeri fepp. boo ko defee ma def ko junni fepp. ma def ko junniy moo tax ba muy faru. nee ba muy faru. boo seetaan lañ faru woon. boo ñetti saako. ëppul saako. tey li fi génn ci saako. nee na tey li saako. dana ëpp junniy saako. payu yàllaa ngi noonu. payu yàllaa ngi noonu. sëñ Cheikh nag. yàlla lay lebal. ni Cheikh yàlla lay lebal. loolu ba mu demee ba daaw. nee na loolu ba mu ba daaw. mu xam ne tool yi. mu xam ne tool yi. bay. ab loxoom. ab loxoom koo bàddali. mënu koo bàddali. mu wax ak Serigne na mu wax ko tool yi su noppeetee. ne ko di ko yi su noppeetee. danaa ñëw jébbal la ko. danaa ñëw jébbal la ko. su la neexee nga taal ko. su la neexee bu la neexee nga góob ko. bu la neexee nga góob ko. loolu moo tax daaw. nee na loolu moo tax daaw. ñu woote ko. ñu woote ko. waaye ñu wuy si woon daaw. nee na waaye ñu wuy si woon daaw. xam nañ ne. xam nañ ni wuy si ga. moo gën bañ a wuy si. moo gën bañ a wuy si de. ndax foo xam ne. ndax foo xam ne. boo fa demee. boo fa demee. dolli koo fa yàlla. dolli koo fa yàlla. dolli koo fa tuyaaba. dolli koo fa tuyaaba. dolli koo fa barke. dolli koo fa barke. koo fa ak xame. dolli fa dolli koo fa ak xame. dem. nee na foofa bañ faa dem. wóorut. nee na wóorul de. te ñi fi ñëwoon daaw. nee na te ñi fi ñëwoon daaw. xam nañ ne. xam nañ ni. fi loo xam ne. jëlee loo xam ne. ngërëmul yàlla rek la. ngërëmul la. ren jii. nee na ren jii. bi ñu màggalee. bi ñu màggalee. tool yi noppi. tool yi mu ñëwaat ci sëriñ bi. mu ñëwaat ci sëriñ Cheikh. wax ko ko. wax ko ko. Eh, ku ne xam ne. ne xam na na na. jamono xat na. ndax barki démb. ndax barki démb. lañ woote tawfeex. lañ woote tawfeex. sëriñ Basiru. sëriñ Basiru. di rakki sëriñ bi. di rakki sëriñ bi. woote ca Daaru Marnaan. woote ca Daaru Marnaan. sëriñ Modou Mamoun Dia. sëriñ di jëwriñ ci kër gi. di ci tool ya. ñu wooteel sëriñ Cheikh tey jii. nee na ñu di Xelkom. ca loolu moo taxoon sëriñ Cheikh Anta wax ne. nee na moo taxoon sëriñ Cheikh Anta wax ne. nañ tànn jàmbaar yii. nañ tànn jàmbaar ñu dem góobi tool ba. ñu dem góobi tool ba. ñu di ci ràññi. nee ñu ci ci ràññi. sëriñ daaru baaxum sëriñ daaru baaxum xalifab sëñ ibra baaxum xalifab sëriñ ibrahima baaxum mu ànd ak rakkam nee na mu ànd ak rakkam sëñ siidi baaxum sëriñ siidi baaxum xalifab sëriñ seex baaxum xalifab sëriñ seex baaxum ñu ànd ak seen mbokk nee na ñu ànd ak seen mbokk sëriñ daam caam sëriñ daam caam xalifab mbar baawaan xalifab mbar baawaan mu ànd ak rakkam mu ànd ak rakkam sëñ musaa caam sëñ musaa caam xalifab caameen xalifab caameen ak ay rakkam ak ay rakkam ñu ànd ak sëriñ seex njaay nee na ñu ànd ak sëriñ seex njaay xalifab sëñ baara njaay xalifab sëñ baara njaay ca baaku njéeme ca baaku njéeme mu ñëw baaku njéeme ñëwaale magam. mu ñëwaale magam. alaaji Serigne Ndiaye. alaaji bi ñu ñëwee ci tund wi. ñu fekk fi waa tund wi. sëriñ fekk fi waa tund ngi nii toog. Serigne Cheikh Mbacke di woy jur ci sëriñ bi. ci Serigne bi. lim njëkk wax sëriñ bi. bu déwénee. ne déwénee. boo koy woote. boo naa jiitu ca bopp ba. ndax sëñ gaawaan. sëñ gaawaan. ak sëñ aafe. ñoo bokk ndey ak baay. ñoo lu baax li seex di wut. nee na moom mii moom laay wut. kon bu déwénee. kon naa bokk ci ñi koy sant. danaa fi fi indi mbooloo léegi la ko wax nii waaye buñ dikkee fekk fi waa Rimbax waa Muslaaj waa Ndiireen waa Càqami ak waa Ngët ak dëkk yu ko wër yépp ak dëkk yu ko Ndindi di njabootuk sëñ Maxtaar Sylla di njabootuk sëñ Maxtaar Sylla ñoo ànd waa Touba ak waa Touba waa Ahlu Badar waa Ahlul Badar sëriñ Basiru Baabu sëriñ Basiru Yuusu Baabu di aj di jàmbaar di jàmbaar ànd Gaawaan ñoom ñëpp ñu ñëw nee na ñoom ñëpp ñu ñëw ba ñëwee barki démb ba xool tool yi ba xool tool woon balaa mu jeex waaye li sëriñ Cheikh wax wax dafa wax ne nañ ko santal nan ko ñi doon bay tool bi ñi doon bay tool yi sëñ Modou Mbaye sëñ yow mi nga xam ne ya doon jëwriñu tool bi eh, yow mi nga xam ne yaa nekkan jëwriñu tool yi Serigne bu ngeen xamoon bu ngeen xamoon ba ngeen tàmbalee ruuj ba ngeen tàmbalee ruuj bis bi ngeen koy def ci saako ba bi ngeen koy def ci ay saako léeg-léeg ci suñu borom di bindal ci tuyaaba suñu borom bindal ci ay tuyaaba bu ngeen xëyee du ngeen bëgg a wàcc du ngeen bëgg a wàcc ndax tool bi kat nee na ndax tool bi ba ngeen koy ruuj ba ngeen koy ruuj yàllaa tax tax ba ngeen koy faru ba yàllaay tax yàllaay tax ba ngeen koy bay ba ngeen koy bay yàllaa tax yàllaa tax bi mu ñoree bi mu ñoree jébbal ngeen ko yàlla jébbal ngeen ko yàlla biñ koy góob nga ànd ak ñoom suñ demee bàyyi leen fi ngeen di ko wattu ba bojj ko def ko ci saaku du ngeen ci mos du ngeen xam ko koy lekk jox ko yàlla yàlla moomee ngeen ko jox ni moom da nee na lu ma waay jox ma dencal la ko ba fa ëllëg amee njariñ ma jëbbal la ko tuyaaba joojee nag kenn du leen ca fekk bu leen ko yàllay fay du tàggu sëriñ bi yéen a ko moom. nee na loolu yéen a ko moom. kon sëriñ bi nee na. nee na kon sëriñ bi nee na. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. yal na leen yàlla fay seenu ñaq. yal na bi. nee na ñaqu sëriñ bi. ñaqu liggéeyal yàlla. ñaqu liggéeyal ak ñaqu liggéeyal sa wayjur. ak ñaqu liggéeyal sa wayjur. kon sëriñ bi nee na. ne kon sëriñ bi na. sëñ Modou Mbaye. sëriñ Modou Mbaye. yaa ngi doon bay. yaa ngi doon bay. seenu ñaana ngoog. seenu ñaana ngoog. bàyyi na leen ak yàlla. bàyyi na leen ak yàlla. sëriñ Cheikh mi ko doon bay. sëriñ ko doon bay. bi dafa wax ne. moom mënut a ci moom dara. doone ci moom dara ndax daa fekkoon mu dib saaku saaku sëñ mu dorox xëy yëlëb ko sëñ ba mu set wicc ba mu set di ko duy mu di ko duy di ko duy di mu fees dell ba mu fees dell mu jox ko puso mu jox ko puso akuk wëñ akuk wëñ moom sëñ Cheikh Anta moom sëñ ne ko saaku bi ne ko saaku bi def loolu ma la ci dara def loolu ma la ci dara ndax dara xajatu ci boros ko boros ko te dencal ma ko te dencal ma ko kon moom boros rek ko ko war boros bi nag na mooy garantel la ak wér akuk yàgg fi akuk dolliku ak mucc ci bépp mag ak mucc ci bépp mbag loolu la ma sëriñ Jili waxoon nee sëriñ Jili waxoon ne sëñ Cheikh nee na sëñ Cheikh nañ ko jottali sëñ seex mbay nee na nañ sëñ Cheikh Mbaye yéen ñi wuy si woon nag nee na yéen bi nee na sëriñ bi nee na loolu ngeen jaayante ngeen jaayante moom ngeen digge woon moom ngeen digge seen diggante ak sëriñ Touba seen diggante ak sëriñ kenn naatablewut ne kenn naatablewut kera bi yonent bi wootee. kera wootee. xareem bu metti ba. xareem bu metti ba. lislaam bëgg a fay. lislaam bëgg a fay. li kéefar bëgg am doole. kéefar a am doole. yi. yéefar yi. junni ca murid yi jullit yi. mu mel ne dugub ji mu woon ñi ko wuy si ni pas-pas la jullit yi doon demee la kero ba ñuy dem nee na kero ba ñuy dem yonent bi daa jaayante daa jaayante sahaaba yi sahaaba min al muminina min al muminina anfusuhum anfusuhum wa amwaluhum wa amwaluhum bi janna nee na ñu jaayanteeg yàlla. jox ko seeni alal. jox ko seeni alal. jox ko yàlla faye. la leen yàlla faye. mooy àjjana. mooy àjjana bi bayhikumul lazi. bi bayhikumul lazi. baayaxtum bihi. baayaxtum bihi. wasaalika. wasaalika. huwal fawzul azim. huwal ñi jaayante. yéen leen. ndax la ngeen doon jaayante. ndax la jar na. lu leen jaral. lu mu leen jaral. texeeg tey. ak goog yi amoon. nee ko am ci tool bi ci barkeb Serigne Touba nee na nag murit du wàcc nee ndax murit xam ne nee xam ne ah, wërsëg wërsëg ak tuyaaba dara du ci doy dara te liñ dund ci àdduna te liñ suñuy bàyyi ñu suti fan suñuy bàyyi seeni maama leen suti fan seeni maama leen suti fan am na ñu daan dund am at am junni bu tegal am junni bu ñu am juróomi téeméer ñu am am am léegi juróom-ñetti fukk. léegi juróom-ñetti fukk. yombatul. yombatul de. ca dund googee kat. ña faatu woon bu yàgg. ña faatu mu mat ñeenti millions at. lan doon jaamu yàlla. ca la ñuy ca la ñuy dund ba tey de. la ñuy dese. ca la ñuy bu ëllëgee. bu ëllëgee. ca lañ leen di atte. ca lañ leen di atte kon tuyaaba du doy. nee bu daanu. nee na liggéeyub sëriñ Tuubaa bu daanu. nañ songu beneen. nañ songu beneen. sëñ nee na. sëriñ Abdoulahat Mbacké nee am. mbir. mbir te bañ yàlla seet ko. te ko. boole koog sëñ Touba kat. sëriñ Touba kat. yàlla mbirum yàlla. yàlla amut. amul lu muy seet ci mbirum sëñ Touba lu weesu lu dikk mu ne ko gërëm naa loola te Cheikh Moustapha Al Karim noonu na li ma sëñ Touba wax ba ma teg ci sama bët li ma wax te gisaguma ko moom laa gën a gëm kon loolu doy na ab soññi saxaaba yi so jaayante woon dañoo joxe woon seen alal joxe seen bakkan jàkkaarloo ko bu yëfër ñu yebal ab jullit mu ëpp la doole fuuf ñu ne la yàkkee xeex mu yor ab xeej nga yor ab xeej ngeen jàkkaarloo nga ne sa jabar fireekul na sa doom wutil beneen baay maa ngi dem su ma dee dem naa àjjana su ma delsee ngeen xam ne sens la jullit yi songoog yéefar yi sun borom wan leen seen kërug àjjana mooy tax ñuy bëgg a dee di songu yéefar yi ak doole yéefar ñu wan leen seen këruk sawara moo tax ñuy ragal a dee ba tax ñuy daw moo tax jullit yi daan duma yéefar yi ndax jàkkaarloo ginu jàkkaarloog seen këruk àjjana bëgg a faatu ba dem ajana loolu mooy tool bii ba ñu xëyee ci suba naaj wi tàng na mar wi tàng na xaaxaam bi bari na waaye kenn ku ne jàpp nga ne guub bii ma seen ci la sama pajog aajo soo koy dagg yaa nga yóotu ba ca des te gisoo liñ lay fayee te soo noppee ci ngay gën a bëgg sëñ Touba gën koo yàkkam liggéeyal gën koo yàkkamtee liggéeyal ngir xam ne du la nax kon nag liggéey baa ngi nii longoor daanu na xel koo ma ngi ñëw nañ ko waajal le 22 rek la am na ñu ne ca bàmmeel ku leen fëggoon na leen kaa leen dem longoor dañ naan benn seconde. benn seconde. bu ma ko fa defee. bu ma ko fa mën na maa faatuwaat. mën kon yow mi faatoogut. nee la defal ñaari fan longoor. ñu ngaa sant yàlla bu baax. sant yàlla bu baax a baax. neex li nga fiy jëlee. nee koo liggéey ci am at. kon nag yàlla faj aajo yi. yàlla faj aajo yi. yal yàlla gàttandoog ndimbalam. yal li nga xam ne. moom la Serigne Touba. defal maam Cheikh muy saxaadata daaray ni. saxaadata daaray ni. texeg yàlla nañ ko sàngoo ñun ñëpp bu ñuy dellu kenn ku ne yitte joo fi indi yal na ko yàlla faj njàqara loo fi indi yal na génnaale ci tool yi dem ba dootoo ko gis ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf ne ñëpp maase nangu ñaan tey ñaan tool bi déwén yal na ëpp gën a nangu yal nañ ko fekkewaat ñi ko bayoon yàlla bu kenn manki ki ko doon baylu yal na dolli ku wér kim koy bayal yal na dolli ko ak ak wér barki Cheikhul Khadim